Euh, tay ñu gis ni sa xarit sa doomu nday sa rak mbay guuy gi di beure ñu ngi sax tafatine pour une première fois 14h40 mu ñu accompagner rakam sa digënté yi non mbay suma suma rak la suma frère la comme ni mbeuri bawol yëpp doone suma frère tay normal bu amé bes ma ñëw partager gog mom té diko ko ci ñaanal ndam bu wër nak waaw loolu tax ma ñëw lepp lu doon def tay gis nga amon na réunion mbeuri ak suma gan yi ma amon affaire yoy bientôt xamoo mais sant yàlla daal di ñaanal booy bi ndam daal uh-huh. voilà. nan nga ko gisee gis nañ sortem bi passé moom ak Zarko ñëpp gis nañ ko te mu jëlaat armée armée nekk koo xamante ni macha allah tafaatir xam na ko mais ñu gis ne Mbaye il est trop confiant ñu bari ne confiance bu muy dégager ci combat ak armée waaw lamb la lamb moom ñun ñëpp la ah da ngay ñam des fois da ngay dem mu neex des fois mu naqari noonu la mbay champion la armée champion la mm-hmm. lamb moom li may wax rek boo takkee dix fois. ñëw takk sa ngëm dix fois ñëw ci arène bi daan ñu daan la donc kon xam nga lan mooy lam mbay xam na lan mooy lam te tey xam na lan moo koy xaar ci bés bi waaw ñun nag lu ñu waroon moom yëpp def nañu ko la res mooy mu dem gérer ndànk ci jàmm ak salaam yàlla may ko ndam quoi. ñu gis

maa ngi ci seen biir tout le temps keroog gis nga bi président woote dem naa tew comme mondu lama ni fa tëggkat bi nexe woykat bi mberam lam mi mais itam xam nga dañu xool ñi gën a siiw rek mooy mbëri lam yi ñu leen di tudd te xam nga mondu lam lañ uute woon yow yaa nga fa woon ci lam ngay yëngu journaliste ñiy dund ci lam ak ñiy ci lam ak ñëpp a nga fa woon te xam nga pour man xam nga njëriñu làmba leen fa yóbbu woon kon du leneen cadre boobu nag bu weesoo donc ñun ay ay ay sportif lañu comprendre nga tey Sadio Mané ni mu war a duggee pale góor gi si Dieng duggee Palais noonu pourquoi pas Tapha Tine mënul duggee pale noonu noonu la war a demee waa uh-huh. ah, problème waru faa am quoi pour man wax dëgg yàlla. franchement uh-huh. gis nga xamante nañ di leen clash di saaga loolu gis ngeen ko uh, loolu nan nan ba nga ko gisee yow lan lay def si yoon te gis nañ ay mbër yoo xamante ni sax te di jël di critiquer ne c'est dafa bañ leen woon recevoir dafa yàgg ñu bàyyi ba tey dañ leen di ceeñ ci maayin affaire yooyu. non saaga moom wax dëgg yàlla loolu moom képp ku baax ci réew mi rek saaga nañ la wala ñu dekkal la feneen waaw loolu tam xam sant yàlla rek te xam ne ñooñu foofu lañ toll it dañ leen di nangul xëj na ci seen liggéey la ñu ne et amul problème pour man. tey moo tax ñëw mooy li ma la wax dama amoon ay gan mooy gan yi drapeau chef de l'État xam ne Uric. ñoom David sama gan yooyu xam nga comme bu ma voyagé ci ñoom laay nekk bu ñu nee fii Sénégal daanaka sama jot du bëre depuis Ndar ja ba léegi maanaam xam nga aw ma aw ma woon temps quoi loolu moo ma teewoon xam nga lijjanti hôtel yeeg voyage aéroport yeeg loolu la quoi mais maa ngi doon déggante Gris Bordeaux ak ak beneen waay bu ci ses ci ñoom quoi voilà. dafa à part loolu ci lan la nekk. maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam. maa ngi ci samay entraînement di xaar combat ñëw. waay est-ce que gars yi ñu ngi lay contacter ñu may contacter bu baax ah. bu baax a waay tey boo déggee gis nañ ñi bombardier jël na ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg tafatin, nekk mbër boo xamante ni macha allah ñëpp ne nañ boo ko jël ku ko jëlul daf ko ragal ñu gis ni ñëpp dañ ne tafaatin ak ki nga mooy lan moo tax tafaatin nangut valider combat boobu. non man comme la wax rek man ak bépp benn mbër ah. du ma ce soit bépp mbër bu ñuy comparé ak tafatin rek man dama japp ne def nga fi dara lu wara tax nga bëré ak tafatin bo ba na man duma dakk kenn ñepp lay bëreel mu bëré kenn ku ñëw rek te muy combat bu logique tafatin dafa am estaf am ñukoy xalal comme dab ñu dem tegg ko ci table waxtaana ku bu fekkee lu mëna nek leen mu nek bu mënul ne ñu xooli leneen. loolu la joxe avance Sa Thiès mu logique moy lima la wax ñepp lay bëreel. bayu ah. maki, bayuma bayu maki. non la dem. ak euh, gis nañ ni fan yi Tapha Tine li muy voyagé dafa bari voyage bi ñu ne dafa am benn contrat bu ko lié ak ñi nga xam te moom mooy Eric Favre contrat boobu ban genre sport ngay compétir foofu. waaw Eric euh, mën naa ne yàgg nañu quoi wax dëgg yàlla voyage yi nag dégg la ci la comme ni ko lutteurs yëpp di defee ah. bien vrai que ñu ngi jéem a pratiquer yeneen sport yu bokkut ak làmb ji mais ñu ngi ciy nekk comme ni ñu ko wax di ko jël ndànk-ndànk quoi. pour gën ko mëna maîtriser xëy na buñ ko maîtriser bien bientôt di ngeen dégg sama combat ci yenen anam quoi MMA mën na MMA wala box mën MMA wala box waay ah loolu moo tax tafa limi tok fi bari waaw dem di entraîner ñëwaat rek loolu la en même temps Eric suma suma partenaire la ci ci ci côté bu ne quoi mën naa ne suma kilifa la sama combat passé ko may xam nga ñoom hélas papa nyom nyep maa ngi leen di tahu taxaw buñ ci taxaw xam ba quoi mm-hmm. oui. Ani boucher que <laughs> allo Boucher Ketchup Boucher ne. mais nag su may su may su may gaay lañ moo Alaaji Mbay ay ay nit ñu baax lañ ku mel ni Boucher. Uh-huh. xam nga maag moom moom uh-huh. dama koy wax depuis États-Unis la. bépp numéro bu ma reeroon États-Unis moom laay woo dama lijjantil ma numéro diw ak diw parce que man dama fa géej yaa cinq ans six ans dugguma foofu xam nga mm, boo maa ngi koy wax kere rek boo sama benn paa bi mu décédé ci corona bi ma may may nuyu njabootam yëpp di nuyu. Ablaye sek bi nga xam ne maa ngi dal këram bronze Elda Avenue xam nga ma koy nuyu quoi moom ak buusa rek laa ci waxat yàlla xam na ko wallahi asim te boobu xam nga nit décédé rek pour nga jot ci koor bi doog beneen affaire la buuse woo naa ko ci ñu sensé ci période boobu muy foofu xam nga ma ne ko gaynde lii ak lii nan la demee mu ne ma xam nga nii ak nii la demee voilà mu ngi noonu quoi. mu non menacé nag menacé bu sa tiital nga ko non mais xam nga wax jàpp bëri woon rek ma woo ko ne ko gaynde lii ak lii ak lii <laughs> non moom ni mu ko waxee noonu la ah, demee. te moom danaa mën a éviter sax danaa mën a éviter ni ngay waxee. wayu la saay saay la moom xam nga artiste la quoi lu mu ah. bëgg a def da koy def. Ah. loolu mooy problème mais ay gars yu baax lañ moog Alaaji Mbay bon ma len di nuyu quoi wax de yalla mais aladji mbay mom coow coow na ba combat bolé ñu mak mom ah, na jël na jël avance bi rek <laughs> uh-huh. voilà dama paré ak yow te duma wax sarak arafas nga dëkk Medina di défendre Medina mu nek sarak moom it ñu gis ni fan ndok ndog yi nga xam dal en tant que mak en tant que euh, tay euh, ban taxawa di ci tafatine am ak tamit ban conseil ngay jox ki nga xam te ne Ada di ñaanal rek xam nga mm, ndog ndog bi yalla nako ci yalla gëné te xam nga bu ci gëné lu mel nonu itam xam nga mu bañati koo dal dal lol moom maa ko koy ñaanal wa bu lolou weso itam xam mu gor goru donc yeen yi mom buñ la ci dégg di la ci déggaat day niru lenen yow sportif nga lamb ngay def te lamb fi ñi ko bëgg Sénégal dafa bëri yow ya wara jël say décision bop ne man li la bëgg fi lay commencer te fe la jëm kenn duma fa très yegg mom lolou la wara def ci xalam quoi xam ne li top topp na ñi ko sop bari na mu bay lolou xalam bu génné ci li mu bañaté def dara lu ko yóbbu fofu man loolu laa koy conseillé en tant que frère quoi. Uh-huh. vraiment 1000 pour cent bu xamante ne waa Medina ñoom ñoo ko créé Tapha Tine loolu est ce que mi ngi ci gis boppam wala est ce que Tapha bokk na ci pour cent. waaw 1000 pour cent bu fa laa déparé nii koñ ba laa déparé mu ngi fees del ñu ngi taxaw mbay guy gi booy yu bëri ñu ngi profité ñëw ñu ngi ci kaar yi di ñëw donc euh, comme li may wax rek mille pour cent moom artistes yi Medina yëpp a ci ne du questionné problème mu ay mber la non non non non non Youssou sax mu ngi ci biir ak Mbaye Gueye Faye ay doomu Medina lañu ñoom ñu ngi ci mille pour cent bi du question ay mbër kese ah ñëpp ci nekk bongo maan beek woykat beek ñëpp ci bokk voilà noonu la demee. Mhm. di la jaajëfal bu baax a baax ndax yow nit ku baax nga ndax euh, yaa ngi waroon dem mais man dama la sonal di la wax rek ndeysaan sama sœur bu mu gaañoo ci ñi ma njëkk woo ci nga bokk di la ci remercier bu baax di la wax ni kontaan naa ci yow ak li nga xam te tey moom nga def ndax mënoon nga da nga ànd ak mbër mais da taxaw waxtaan ak ñun ñu waaw ñu ngi lay jaalewaat suñu sœur boobu aussi di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm di wax ne àdduna noon la di la ko jaal di ko jaal sa frère champion ñoom ñëpp ak képp kuy seen mbokk di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xere ko aljanna di wax ne àdduna noonu rek la ah demal maa ngi fi maa ngi ñëw la kon ñun ñi fi nekk nañu ñaanal yi jiitu rek te yàlla tax voilà mu ngi noonu ko ma jéena dina ko dégg incha allah waaw sa xarit la waaw ak ñoom Siga John Eliman voilà mu ngi noonu quoi. man léegi dama bokk foofu ndax madame Tine ak Siga. non non yow yow yow yow yow bawal bawal nga léegi. dama lay jëlee ci wàllu wàllu yi. jéena kontaan naa ci yow. incha allah ñëw faro merci.